jamono ji ma ngi ci ab retrouvaille ci biir APR ginnaaw Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne dalaloon na ko fi ak Aminata Touré mi nga xam ne diggante ak Macky Sall jamono ji gis nañ ne ko mburu fan yi nga xam ne moom la ñu génn tamit ca diwaanu Cambérène ak Thiénaba gis nañu Macky Sall Amadou Ba nekk ci wetam yéen a kaay gi ne na Macky Sall bëgg a boolewaat kàngam yi nga xam ne moom la tàqali ko woon yéen a kaay gi ne na ran yi jub na yi jub loolee ci la Macky Sall nekk xamuñu lan moo cay xew journal bi nee am na lenn loo xam ne Macky Sall war na koo jàngee ci loo xam ne daloon na Abdoulaye Wade maanaam tàqalikoo ak i kàngam ndax say kàngam say jigéen ñaale bu ngeen tàqalikoo loole mën na laa néewal doole te ñooñu dañuy xam lu bare bare yéen a kaay gi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de Sall njiitu réew mi di président Macky Sall béy boo mu jël ay matukaayam ndax opposition bi ñoo ngi dajaloo ci seen biir ngir nag taxawal ab coalition boo xam ne coalition bu mag lay a kaay gi nee na ci finalisation ci la kaay yi nekk Ousmane Sonko Cheikh Bamba Dièye xalifa Sall Malick Gakou ak docteur Babacar Diop ak ñeneen ak ñeneen yéen a kaay gi du Sud Quotidien xëy wax ci coronavirus bi nga xam ne mooy jàbba jonge ci réew mi waaye nag am na ñenn ci sénégalais yoo xam ne maanaam daal jinjeer la ñuy jël ak limon ak li nga xam ne nag moom mooy daal xorompole boo leen boole nag ñenn ñi gis nañu ci seen bopp daal am na kenn koo xam ne nee na li nga xam ne moo ko daloon jàpp na ne daal coronavirus la waaye la jël ak limon ak xorompole daal di koy boole yéen a kaay gi du Sud Quotidien nee na jamono ji jinjeer ji cher ba maara day taale ndax na kilo jinjeer ma ngi doon jar mil 1200 jamono ji ma ngi ci 2000 francs yéene kaay gi ne na xorompole kilo bi nag ma doon jar 5500 jamono ji yokk na ba 7500 yéene kaay gi de enquête xëy dañu xibaar naan ñu coronavirus bi jamono ji nag nemmeeku na ne ma ngi wàññeeku ci Sénégal yéene kaay gi di réew mi quotidien les échos enquête Walfadjri l'observateur ak le quotidien ñu xëy fekk fa Soham Wardini maire bu Ndakaaru muy dàgg sante ak ki nga xam ne mooy Aliou Ndoye maire bu Dakar Plateau ne na en tout cas ñaari maire maire yi daal li nga xam ne nag moo leen jotale ba jamono ji ñuy xiiru nag mel ni xaj muus maanaam mooy marché bu Sandaga kenn ku nekk dafa bëgg nag yilif marché bu Sandaga mbir ma nag jamono ji mënu ñoo wax ne fa mbaxana doonee benn nag lay téere ji son war di mer na ba maara di taale nee na ko Aliou Ndoye nag di xam ne daala tubay ñaari loxo moo koy takk waaye sér tamit ñaari loxo moo koy takk Aliou Ndoye nee na ko soxam war di ni xam ne nag ba si a a la sa Aliou Ndoye moom nag daat nay wax ne amul marché Sandaga daal di koy yóbbu ci mairie bu Ndakaaru marché Sandaga sunu moomeel la te ñun nag am nañu ab projet boo xam ne dinañu ko tabaxaat daal ba mu mucc ayib comme na mu meloona mu am nag ab centre commercial boo xam ne bu moderne lay doona soo war dini nee na lii nga xamante ni moom la ñu def daal daal di daaneel marché Sandaga loole nag crime dëggantaan la crime la boo xam ne dañu koo jëmale ci patrimoine culturel la waaye nag mbir mi daal danañu si dem jusqu'au bout yéen kaay gi du l'observateur bii di Cirque Noir xam na nag maanaam na ñoo jàpp sax ne film porno la yéene kaay gi nee na acteurs ya ak actrices ya ak producteurs ya ñoom ñëpp daal bi ñu ko xaymaa toll nañ ci fukk ak juróom-ñaar teg nañu leen loxo division spéciale de cybercriminalité moo fa jaar yéene kaay gi de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu bëri na ay milliards ay milliards yi milliards yi milliards la ñu jël nag dugal ko ci wàllum inondation yi te ba ni saafara mus waaye nag milliards fan la jaar journal Mamadou Omar Ndiaye bi daal wax ne ñaar fukki fan octobre atum 2020 njiitu réew mi di Macky Sall moo waxoon ne lu toll ci 506 milliards dugal nañ ko ci wàllum inondation yi te ba léegi nii inondation yi ma ngi ci réew mi milliards yooyu fan la duggoo yéene kaay gi ne ministre Omar Gueye moom nag waxoon na fi ne lu jëm ci wàllum liggéey yi nga xam ne ñoo ngi koy liggéey Kër Massar ci inondation yi mën nañoo wax ne liggéey ya pare na à 90 pour cent te nag benn taw kese kese kese bu wicci wiccalee rek Kër Massar askan wa tëmb ca ndox ma ña nga xam nag ñoo fay ñoom nag jamono ji li nga xam ne daal moom la ñuy wax vengeance d'état maanaam kàcc ak fen yi nga xam ne moom la état bu Sénégal loole la askan wi yeewoo Kër Masara di naqarlu bu baax a baax du suñuy kàddu dañuy nettali kaay gi di Rewmi Quotidien ak Libération ak Vox Populi xëy ci Penda Kébé mi nga xamante ni maanaam dañ koo fekkoon nag mu ñàkk bakkanam ci gox bii di Ziguinchor yéene kaay gi nee na Aliou Diouf mi nga xamante ni moom lañ jàpp ne moo def giraawaali googee moom nag wax na enquêteur yi lu da koo ñaan lu toll ci soixante-dix mille francs ngir nag mu daal di si jënd ab jesneer ngir nag waajal